asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yu Senfootball TV di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi tey damay wax si Aliou tout d' abord nag dama leen bu baax baax si commentaire d' encouragement yi franchement ça fait comme tubaab ni waxee franchement neex na ma lool. mbokk yi lan moo tax muy wax si Aliou Cissé gis ne décision yi mu nekk di jël nii dama si ànd ak ak moom 100 pour cent parce que fallait mu def lii bu defoon leneen aussi tamit dinaa toog vidéo wax ko parce que li laa doon na ko alhamdulilah Aliou gis ngeen ne euh, Jurgen Klopp euh, dafa a téye Sadio parce que dañu war a jàmmaarloo ak Chelsea gis ngeen ne au niveau de première ligue ñaari équipe yi dañuy xeeb bu baax baax nga boole si tamit ak Manchester City ba tax na moom jàpp ne jongante boobu dafa am solo trop parce que alal bi gis ngeen ne dañoo mës stade en fi te moom ay meilleurs joueurs am Sadio Mané Mohamed Salah am nañu fa cër bu baax a baax donte Diogo Jota c'est quand même intéressant ak ñi nekk si milieu terrain rek yooyu noonu Liverpool équipe la collectif la mais Mohamed Salah muy def si ay prestations ak ay statistiques am Sadio Mané muy andi moom bu soñoon da leen di ba boobu ba tax na ñoom bi dinañ genre benn bataaxal benn lettre boo xam ne dañ ko jëmale si fédération euh, bu Égypte ak fédération bu. Euh, bu Sénégal mais moom ci ay kàddu xamale ne euh, ba tey dégg ko kenn répondre que kenn waxaw ko lu leer moom dépendrul ci moom. ma gis ne euh, position bi xamante ne Aliou Cissé am na ko ak fédération bi foofu la nañ ko jàpp foofu buñu ñu leen may ñaar lan moo tax club bi du leen may ñaar dërëm dem si benn compétition bu xamante ne daf ñu amal solo ñu Sénégalais yi ñu jul trophée ñun lu ñu bëgg Sadio jël ligue des champions trop jël premier ligue Edouard Mendy content keneen ak keneen content bu Sénégalais yi jëlee coupe d' Afrique mbégte bii am suñu suñu xol yi bu ñu kontaanee Sadio Mané jël trophée est ce du nekk 1000 parce que mosuñu ko jël donc ñun coupe d' Afrique daf ñu amoon solo club yi donte ñooy fay euh, ñoom Sadio Mané ñooy fay ñoom Edouard Mendy on est d' accord y' a pas de souci euh, à chaque fois ça wala gisee bu ñu ñëwee sélection bu ñu amee petit gaañu gaañu dañ leen di koy delloo gaaw bu ñu amee gaañu gaañu bu ndaw dañu sax teg baat donc ñun aussi tamit jamono bi benn un mois lañ leen di ñaan. xam nga nañ ñu bàyyi suñu jeu parce que dañu soxla un Sadio Mané en forme boo leen xoolee dañuy coupe d' Afrique bi Sadio Mané dafa en euh, enchaîné des ay compétition ay match yu enchaîner enchaîné coupe du monde ñëwaat ci clubam xam nga euh, joué dem ba de ligue des champions xam nga beaucoup ko xam si effectif bu Liverpool yóbbu leen ko la bokk si joueurs yi ëppale ay match ñu ne déet mu coupe d'Afrique. war a enchaîner waat joueurs yi mu doon foofu yëpp Sadio Mané mu am si ay match si ay tànkam amuñu ko woon donc amuñu sax meilleur Sadio Mané et pourtant bokk na si meilleur joueur Coupe d'Afrique boobu donc bu ñu que c'est bon amul lenn lu ñuy may waa waa waa Liverpool bu ñu ko utiliser mën na am benn gaañu gaañu après ñu naan non c'est que c'est-à-dire bu ñu leen may dara Sadio Mané ay masam bu jeexee comme kaf ni ñu ko waxee FIFA nañ ñu jox suñu joueur mu nekk ñu préparé ko entraînement mu mën a débuter coupe d' ñu jàpp nag war na mën a def coupe d' bu baax a baax am na qualité yëpp pour war ko mën a def expérience bi euh, maturité euh, mentalité bi qualité technique bi lépp am na ko bagage technique bépp Sadio am na ko il fait partie des meilleurs joueurs du monde donc euh, on a besoin de Sadio Mané boo xamante ne en forme donc Aliou fi nga jàpp foofu la bu leen mës a tontu sax tontu sax bu leen ko def. parce que Aliou Cissé tey am na na

Euh, parce que Thierry Loret moom moom c'est un gars drôle entraîneur bu franchement ambiance bu mu nekk Strasbourg day wax ñii di retaan rek donc ma jàpp naa ne lu positif rek la ko wax parce que wax na ne moom trois joueurs am dañuy jëm donc xam naa ne bëgg na déggoo ak sélectionneur yi peut da koy parce que gis na ne Moustapha Nam à chaque fois que mu ñëw Sénégal peut-être Aliou Cissé du ko utiliser donc pourquoi pas mu may ko mu toog euh, Paris FC wala mu gën ko téye yu demee am na am na lu ñu war a discuter en tout cas ko sax déglu. boobu ba léegi muy jéem a jot Aliou Cissé xam nga dem na ni mu ko waxee pourtant moom ni mu ko waxee sax nee na lu simple la xam nga voilà y' a pas lu garaaw quoi mais Aliou Cissé dafa jël benn position bu ferme bëggu leen déglu bëggu leen sax may ñu naan dañuy expliquer c'est c'est-à-dire parce que si Coupe d'Afrique logique Coupe d'Afrique yi nekk quoi. muy benn gis naa tamit waa waa waa waa waa kii xam na sénégalais gis nañ ko waa waa Napoli ay seen taskatu xibaar parce que muy xool gaañu gaañu bu bu bu Kalidou Koulibaly dama doon xool information Napoli tamit yi nekk foofu. ñu ñuy xamal ni waa Naples ñoo ngi essayé aussi tamit pourquoi pas def ni Liverpool bind benn bataaxal may leen ñu parce que ñoom dañoo war a dee Milan AC dañoo war a dee Juventus donc seen ñoom seen match sax moo moo gën sax bu bu bu ñoom Chelsea Liverpool donc ñooñu tamit buñ leen sax tontu suñu waaj boo wëree Kalidou Koulibaly un mois ferme wax day euh, la blessé sax mu nekk deux semaines boo wëree nañu jox suñu Kalidou Koulibaly on a besoin de suñu capitaine

xool réellement ndax joueurs yi dañoo blessé wala blessé wuñu boo leen xoolee si dernier match yi euh, nga xam ne dañ ko waroon a joué Paris Saint-Germain dañoo ñaari joueurs Neymar ak Messi ñu ne Neymar ak Messi dañoo blessé xam nga neexoon rek ñu toog foofu ñu ne ah, kii dañoo blessé non grave kon li ngeen wax dëgg la quoi yéen moom euh, vous faites part des meilleurs clubs du monde seen i médecins dañoo aay mais daf ñu loolu de dañ leen wax andi leen ñun ñu xool bu fekkee dañoo blessé ñu delloo leen ko y a pas yeneen club bi di fay si toutefois euh, blessé waruñu leen teg titulaire on a vu match titulaire Neymar blessé ñu delloo ko Paris Saint-Germain a pas de souci donc ñun aussi nañu def lolu noonu si toutefois suñu joueur dañoo blessé ñu wax dëgg la y a pas de souci donc nañ leen gëm mais si toutefois li ñu wax leneen la nañ ñu aay suñu joueur ñu nek au top ñu mën utiliser Coupe d'Afrique heureusement que joueur ñu ñuy wax yëpp laata Coupe d'Afrique bi dinañ wër te damay ñaan sax bala bobu sax ñu wër fi ak une semaine bi te yalla mën nako donc mbokk yi li mën na ko vidéo bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV.